six jours moo des. Hmm. samp yi muy mbëri xam nañ samp yi heure bi ay zor. Hmm. Euh, ci ay hmm. ministre président borom borom

moom sëriñ bi day sëriñ la. sëriñ bi ci boppam. Mm-hmm. moom sëriñ day doon. sëriñ mm-hmm. day doon mais dafa am loo xamante ni moom foo mu doole ko. Mm-hmm. yaa ngi dégg. parce que mbër di nga ko yor di nga ko yor di nga ko yor ba benn moment nga xam ne kii ne su ma seetu renfort dina ñàkk parce que sëriñ day ko léegi dina bëgg mbër. yaa ngi dégg sëriñ. Mm. mbër mi dina ñëw si mbër ba tey jii man yow. mën ngay ñëw ma bëgg la. Mhm. di sonn ci yow loolu leer. dëgg la. du seen kese lañ war moom la am na lu ñuy wax suñu borom. mooy def si ñoom bay rek. Mhm. foo mën a dem ci kaw su dañuy bëgg loolu loolu alhamdulilah la doo utiliser dara mais dañuy bëgg kilifa moom la toog da lay bëgg da lay attiré si bopp parce que kooku suñu borom moo koy def si biir te doo doon dara. Mhm. moo tax day am te ay mbër.

boo ko rëg-rëg bëri na ci ay sëriñ su koy ñaanal yoo xamante ne rëg-rëg sax xamu leen. Mhm. juróom benn at ci àll. juróom benn weer ci àll ngir ngemb kese. te bëri na kon rëg-rëg mun naa ni kon mbër yi ëpp ngemb ci làmb moo rëg-rëg ci la

yàlla mais gis nga seen jàkkaarloo barki démb fële ca TFM euh, ñoom ñaar gis naa mystique yu bari mais sëñ bi dafa am loo xamante ni faw laaj la ko mënoo fee jug mënoo fee toog ba jóg dem te duma la ko laaj Reug bi muy dugg si ci bunt bi ay bekk suukar lañ fa teg. juróom-ñaari bekk suukar oto bi jaar ci dugg guy gi bi muy dugg si gis naa ay poftan gis naa ñu sànni foofu ay jën euh, bekk suukar yi tegtalu lan la. waaw bu dee suukar. Mhm. suukar suukar xam-xam bu ñuul la. moom suukar. suukar. Mhm. suukar ak sonde. Mhm. moom. xam moom suukar. yaa su ko dafa bëri lu muy que dafa sama liggéey la. dëgg la tey gis dara

fekkee ñu la